la la waaw Sakama la la la yàgg nañoo pose première pierre yàgg nañoo inauguré ab liggéey waaye tey nag delloo nañ nit ab cëram ndax defe naa ne li ñu toog teg pose première pierre wala ñu inigré ab infrastructure ci kër Cheikh Ibra bariwul ndax nit ñoo xam ne wutuñu dara bugguñu dara duñ laaj dara lépp loo xam ne jóg na rek ñu jébbal ko Serigne Touba. kon nag te Serigne Touba waxoon ne ku liggéeyal Serigne Touba taalibe lay fay kon président de la république def na ba tey waaye tey jii def na lu jara def def na lu am maana jox na ko ko mat jox def na ko fu ko mat a def jox na nit aussi dayoom bi ko yàlla jox ndax bu ti bu sëqee jox daaru karim sëq jox sëñ Mourou Moustapha sëq jox Cheikh Ibra ah def na lu ko mat kon nag fawuñu sant ko ndax sëriñ Abdou Lahad de moo wax ne ku ma defal ba ñëpp lu ñëpp gis ma santale ba ñëpp di ko moo waxoon ne du ma sant ku ma deful dara waaye boo ma defalee lu ñëpp gis ma santale la ba ñëpp déggoo ko te def na lu ñëpp gis kon nag wax ji du dañu leen doon dalal rek di siyaare waa kër maam Cheikh Ibra yëpp. di indi nuyoo bu ànd ak ziar bu son excellence président de la République Macky ci taxawaayam ci biir Touba ak yéeneem ak jëfam lu ñuy war a tàmbaliwaat tey mu dolliku ci lim fi jotoon a def loolu mooy lan ñëw ci kërug ndigal ñëw ci kërug jëf di fi feeñalaat yéeneem ak jëfam ñuy war a tàmbali incha allah tey di def teg xeer wu njëkk ci tëli bi nga xam ne moo jóge ci soqi ci tëli bu mag ba ba jëm si fii ci kër Cheikh Ibrahima Fall moom la ñuy teg bi tey fii ci kër gi am na jafe-jafe ndox yu ñu fi joytu woon yu ñu fi ñëwee maag Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma loole yàlla dogal na saafarawu na ndax forage bi moo paanoon pompe defaraat nañ ko ba ndox ma ma ngay xelli wax na it ne nañu tàllalaat ay tuyaux yu yaatu mu jëm ci mbedd yi aju ci gox bi ba ndox mi gën a yaatu ñëpp jotu ci bu dee ci wàllu courant bi tam wax na ni fu mu yem nañu ko xool sofaat ko fa dolli ko ba mu gën a yaatu ci gox bi xam naa fi ñu toll rek dafa xaw a xat ak liggéey bi ñu nekk muy campagne électorale bi waaye incha allah ki doon ànd ak entreprise yi fi ñëw di def loolu ci wàllu ndox mi wala wàllu courant yi muy Abdou Lahad Touré bu liy jàllee incha allah dana àndaat ak ñoom ñëw fi ngir lépp loo xamante ni luñ fa war a mottali la ñu mottali ko ba kër gi ak sëriñ bi am ko niñ ko bëggee kon sëriñ bi ñoo ngi lay sàkku nga ñaanalal ñu son excellence président bi Macky sàll ci yéenuy rafet yi nga xam ne. am na ko ci senegal waaye rawatina ci biir Touba te dara warulu ko lu dul xam ne dëkk bi am na lu fi war ci fànn yëpp ndax lii ñuy def fii kat ni ko monsieur le maire Abdou Lahad Ka waxee rek dañ koy jëmbale ci kër Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina mu ëmbaale yeneen yi nga xam ne war nañ koo def ci dëkk bi waaye ki nga xam ne moom la ñu yëkkati liggéey bi teg ko ci loxoom. incha allah bu toogee fii te bokk ci service buy liggéey di saytul état bi wàllu liggéey dana gën a leeral jëf yi nga xam ne moo jëm ci tëli yi tàmbale ko ci bii ak yeneen yi ci aju yëpp te dara génn ci Cheikhul Khadim lépp ci biir kër Serigne Touba la nekk ci pàcc yi nga xamante ni yittewoo woon nañ ko fa mu doon demande sociale boo xamante ni bi bu jëm si woon ci moom la dana ko yeggee wax bu ci nekk fa mu jëm ni ma koy faral di waxee nag euh, ki jëfati jëf jii euh, fekk na fi ay jëf bi république Sénégal taxawee ba léegi yàlla dogal président Senghor jaar fi Abdou Diouf jaar fi président Abdoulaye Wade jaar fi taxawaay ak jëfi président Macky sàll ci Touba wax dëgg yàlla buñ doon xool jëf yu ñuy dajale di wutal jëf ndey wala baay wala kilifa. jëfam mooy kilifa jëf yi fi mos jaar yëpp kon sëriñ bi ñoo ngi sàkku ci kiy jëf-jëf jii kiy taxaw taxawaay bu rafet bii ci wetu cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal cheikhul Khadim ngeen ñaanalal na ko bu baax sunu boroom defal ko tawféex defal ko sutura ba réewum senegal mii mu yor te ay yéeneem mooy fu mu bu ëllëgee mu wut feneen fu mu ko yóbbu. ñëw tàmbali liggéey yoon wii jóge ci yoonu jannatul mawa ñëw ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall waaw loolu moo ñu fi indi ñu ñëw waxtaan ceeg xalifa bi dem ba Jurbel fekk ko fa waxtaan ceeg moom mu jox ñu kiyam bénédiction jox ñu abalam ñu ànd boole ñoo ay nit ñu ñëw seetsi ko biñ fi njëkkee ñëw dañoo ànd ak entreprise bi nga xam ne moo war a def liggéey bi muy CRBC ñoom lañu àndal lii ngi nii toog firnde bi rek mooy pour wane ne président la république mi ñu fi yabal à travers suñu ministre Mansour Faye jaarale ko ci suñu directeur général mu Ibrahima Ndiaye daf ñoo tànnloo entreprise bi gën a mag ci àdduna ba ma koy wax ñu bëri fii toog xam nañ ko bi gën a mag ci àdduna mooy CRBC àdduna laa wax nag mu jëlaat entreprise boobu dénk ko liggéey bi entreprise boobu tey boo nee CRBC boo dawee jaar ci Ila Touba di nga xam kuy CRBC entreprise boobu defar ilaa Touba ñi ciy jaar gis nañ ko ñooñu ñoo war a def liggéey bii tey pare nañ nag ñoom pare nañu parce que ñëwuñu pour teg xeer dem déedéet dañoo ñëw pour tàmbali waaw tàmbali moo ñu tax a ñëw moo tax. ñu ñëw ànd ak ñoom ñu indi seen matériel natt bii nga xam ne lépp looy def ci mbàddu tabax lépp loo mën a tabax da ngay natt ba pare natt boobu ñoom tàmbali nañ ko ànd nañu ak sëñ daam aussi mu wan leen yéene bi ak li xalif bi am pour fii mën naa cee citer quelque rek mooy parking fii ci buntu kër sëñ bi ñu aménagé ko jël tali bi aussi yóbbu ko ba ci euh, marché umul xuraa ndax keroog bi ñu fa ànd ak Ibrahima Ndiaye bi mu ñëwee bi mu xoolee ba ci ginnaaw dafa ne noonu du yem fii nañ jéem ko continuer te loolu tamit bu soobee yàlla loolu la ñuy def bu loolu weesu aussi sëñ bi dama lay wax rek profitoo ci loolu ne lii nii ñu lii nii ñu ñëw fii pour def ko du loolu rek la ñuy def Touba bu soobee yàlla moo ñu indi ndax yàlla dafa def président Macky Sall dafa annoncé 31 décembre ne day def. deux mille cinq cent kilomètres de route ci cadre PSD PSD nag financement la boo xam ne moo ko jëlali boppam Angleterre indi ko laalewul ak lenn ak kenn ak dara maanaam tali yi ñuy wax fii ne dañ koy liggéey financement bi bouclé nañ ko ba pare xaaruñu trésor xaaruñu kenn loolu aussi mët naa leeral pour wan nit ñi ne buñ ko tàmbalee yeggale ko dina yomb incha allah te loolu tam ñu ngi ciy xaar seeni ñaan bu baax bu loolu weesoo aussi tali Tindodi bii ñu jóge ci la bokk talib daaru Karim ci la bokk pencum sëñ Afe ci la bokk pencu daaru Rahman daaru daaru Marnaan li ma ci la bokk marché Ocass gis ngeen ne tàmbali nañ ko daaru salaam mooy boo jógee daaru salaam Mbàkke jëm Touba ci la bokk ak boo jëwee ba ci autoroute bi boo leen seetloo màggalu Touba bu ñëpp ñëwandoor yegsee ndoor ci péage ngaabu day xat léegi ci suñu waxtaan ak Cheikh Bass Abdou Khadre ak waa Touba ñu ne dañ ibbi yoon woo xam ne boo yegsee ba ci ngaabu day mën a continuer dem EDK Mbacké mu doon boo yegsee foofu nga am ñetti yoon yoo mën a génne autoroute bi nga jàdd jëm ngaabu jàdd jëm Jannatul waa wala nga continuer jëm Mbacké ci EDK bi boobu aussi ci PSD bi la bokk dañ koy tàmbali liggéey boobu aussi beneen entreprise da koy def bu bokkul ak bii toog fii waaw lii ma cité aussi du benn entreprise yeeg mooy def lépp déedéet Enan Chine ci la bokk Jean Lefebvre ci la bokk donc entreprise yu bëri au moins ñett wala ñeenti entreprise dañ ñëw Touba pour tàmbali defalandoo liggéey yooyu donc du benn entreprise buy capp fi capp fi déedéet loolu aussi bëgg naa mu leer ci ñépp ñu ngi nuyu bokk fi teew yépp ci turu jëwriñu Seere Fall ji di sëriñ am Amdi Fall moom sëriñ Modou la yàlla ko suñu borom yàggal te wéral ko di jottali ay cantam ak i ngërëmam mu jëm jëkk ci njabootu sëriñ Touba ji fi teew sëriñ bi di leen nuyu te di leen siyaare te di leen ñaanal sama borom kàttanal leen te bàyyi leen fi ba yitte ji ngeen am wala yéen ji ngeen am ci liggéeyal ko seen maam ji baax ja ci ginnaaw sangam bi Cheikh Modou Mountakha sama borom kàttanal leen ba ngeen mane ko nu kawe seen njort nuyoo boobu nag da a teew waaye Cheikh Modou Mountakha si moom rek la jëm muy jëwriñam jooju nga xam ne mooy yaakaaram di kilifaam di ak bëggam nga xam ne amul lenn lu muy sàkku sedd na lu dul bëgguk sëriñ Mountakha sëriñ bi nee mi ngi koy nuyu te di ko siyaare di ko jottali it nuyoo siyaare Fall gépp nga xam ne ñoom la jaboote te ñoom ñëpp ñu teew fii fi kanamam sëriñ bi nee na mi ngi sant njabootuk boppam gi di njabootuk maam Cheikh Rafal gépp mu ngi siy jiital sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mii toog di jëwriñam nga xam ne ba mu amee ndigal lii dafa dal yónnee si moom jox ko ndigalul mu ñëw taxawu bis bii taxawal ko fi xam ne fu sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng teew mel na ne sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbène ma nga fa waaye mu am geneen taw tawféex muy njabootug Cheikh Rafal gépp a ngi nii toog ni ko sëriñ maam Cheikh doon lime li dale si kër maam Saliou Fall jaar kër Cheikh Modou Moussa mi njëkk a wutu Cheikh Ibrahima ba si kër maam Ngunda mi nga xam ne mooy caatum Cheikh Rafal njabootug Cheikh Rafal gépp a ngi nii toog si ndigalul sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbène ndax ñoom kat dafa danoo danoo danoo jaayanteeg sëriñ bi waaye danoo jàpp sëriñ bi danoo fonk sëriñ bi sëriñ bi di wax saa su ne ne yan bii tege ci kawam bu woyefee rek mooy njabatug boppam gii ñoo ko ko taawul ba agsiwul ci moom sëriñ bi di seere njabatug sëñ tubaab gii teewu ne njabootam gii di njabootu Cheikh Fall jàpp nañ ko te jàppale nañ ko ndax mboolem ndigal lu fi jaar ba ba muy egsi si ndigal lii nu teew ndigal lu fi jaar rek lu fi egsi rek ànd ak njabootu Cheikh Rafal gii ñu def ko ba mu mel na ko sëriñ a bëgge kon sëriñ bi nee mi ngi seere mbooloo mi ak cant goo xam ne mi ngi koy sant njabootu boppam di njabootu Cheikh Rafal te di leen ñaanal sama borom kattanal leen te wéral leen te jox leen xéewal yoo xam ne nu nu bëgg jekkoo liggéey bi daan ko ne jekkoo barke bi maam Cheikh Fall li sëriñ bi bëgg si ñoom lépp nag mu am ko waaye ñoom it liñ bëgg sëriñ bi lépp nu am ko sëriñ baa ngi leen koy seereel di ko séeral njaboot gii teewu sëriñ bi wax na ne mi ngi sant taalibe yi fu nu mën a nekk rek nee na mi ngi leen di sant ndax kenn ku ne sa jaayante sa digg ak moom ba nga sukkee ne jébbal naa la sama bopp wala ngay dund ak taalibe foo ko mën a defee rek ba nga jógee wax ja nga wax danga ko koo daal di jëmmal si ay jëf mooy di déglu ndigalu sëriñ bi te di ko jëfe te bañ di jaar si lenn loo xam ne wuute naa ak loolee waxtu wu ne taalibe yi ñu ngi déglu ndigal sëriñ bi di ko jëfe te kenn ku teewlu liggéeyub Cheikh Rafal xam na ni njabootu Cheikh Rafal gi de li ñu naan tànk kanam la am waaye amul tànk ginnaaw ndax liggéey bi bu nu ko seetloo fa ko jëwriñam ja di magam ja bàyyi woon di Serigne Cheikh Fall jëmb moom de liggéeyal nañ ko ko ba tegal ko ko foo xam ne bi mu ñëwee dafa dale rek jëm sa kanam waaye loolu da ko ànd ak taalibe yi nga xam ne lépp lu fi sotti rek ñoom ñoo ko sottal bu nu waxee taalibe yi nag ñëpp a ngi si biir nun ñi nga xam ne sunu yaakaar. dara génnu si Cheikh Ibrahima Fall ñun ñëpp ñu ngi si biir kenn ku ne na si gis boppam xam ne kenn ku ne jàpp ga nga jàpp bokk na si li nga xam ne li sëriñ bi bëgg mu loola mooy tax loola am kenn ku ne jàpp ni fa nga jàpp waroo yolomal waroo bàyyi ndax da jàpp si fu am njariñ foo xam ne dafa bokk si li nga xam ne mooy mooy jëme liggéeyu sëriñ bi kanam te Cheikh Modou Mountakha am am mbégte si njabootu Cheikh Rafal wala si taalibe yi. loolu rek mooy li ñuy jariñ àddina mooy li jariñ àllaaxira ndax loolu lañ diggee ak moom jox ko suñu bopp àddina ak àllaaxira te yàlla rek a tax Cheikh Fall nag lim nu faggul indil nu indil nu ko fi weesuwut bëgg sëriñ bi ak liggéeyal ko rek te yàlla tax loolu lañu diggee ak moom Cheikh Rafal boobu loolu la diggee ak moom te kuy jàng ak taalibe rek ci Cheikh Rafal nga koy jànge bëgg sëriñ bi ba yemale ko dara def ko na ko Cheikh na Cheikh Rafal defoon sëñ da koo bëggoon ba dana ko woon féeteel ak yàlla rek yow mi ko xam man ma féete ak yow sëñ tubaa nam féete woon suñu borom kenn ku ne xam ne ni sas wa dara boyu si waaye Cheikh Fall fa mu féete woon sëñ tubaa kenn ku ne xam ne matal na ko loolu moo jur lii tey kilifa yii toog si kaw ñu toog fi suuf di déglu seeni ndigal te ndigal lu rot ñu jëfe ko foofii la sëriñ Amdi Fall ne sëriñ bi nag dafa waxoon ne moom amul ak bëgg si àdduna lu dul luy tax mu jekku ndigalu sëñ rek mooy ak bëggam sëriñ Amdi Fall nee na amul genn bëgg moom jekku ndigalu sëriñ bi rek mooy ak bëggam soxlawul leneen keroog ba nga xam ne ndaw yi ñëw nañ fi bàyyikoo ci njiitu réew mi ñëw di tàmbali seen liggéey bii ñuy tàmbali ñëw si sëriñ bi sakku ñaan ci moom sëriñ bi daf maa wax ne ma nee leen moom de maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ndax sama xarita day ñëw fi man day diisoog man waaye man de sama bëgg weesuwut lépp lu sëñ Muntaxa bëgg rek ma mën koo def lu mu ma digal rek ma mën koo def liggéey bii nag ñuy taxaw tey jii nga xam ne moo na fi dajale bokk na si luy yombal am Amdi Fall ndigal lii nga xam ne moom la bëgg a jëfal Cheikh Modou Mountakha ndax liggéey bii dafa doon yéene joo xam ne dafa mottaliku muy yéene joo xam ne Serigne Modou Aminta Fall jàmbaar ja da koo amoon ndax ci moom jëmmam ji la Cheikh Abdoulaye Mbacké jaarale woon bërëb bii teg ko si loxoom mu saytu ko ba mu mel nii mu mel dikk fii ànd ak njabootu Cheikh Rafal gi kër Cheikh Rafal gii nga xam ne. képp ku fi dugg danga xam ne lii méngoo naak lu Cheikh Fall moom ba noppi daal fi teg yoon woo xam ne képp ku fi toog di jëmmi Cheikh Fall kër gi sa moomeel la yaa ko yilif te kenn du ko werante ak yow loolu noonu la lu nu fi Cheikh Fall bàyyil waaye Cheikh Modou Aminta Fall dafa njëkk a wuutu Cheikh Fall si sët daal di indi nag loo xam ne lu mel ne la sëñ Fallou daa wax ni man maam rek laa waaye bàyyee ngi ñëw waaye bi sëriñ Modou Aminta Fall ñëwee dafa yoon wi tegaat ko foo xamante ni fii kenn ku Baye Fall kuy wuyoo Cheikh Ibrahima Fall da nga xam ni yow benn yitte dong wala wenn yoon képp nga am muy bëgg sëriñ bi ak di ko liggéeyal rek di déglu ndigal te bañ jaar si lenn lu muy tere waxtu wu ndigal rotee rek nga jëfe ko ni ko sëriñ bi diglee kon yéene jooju yi tey jii moom ngeen ñëw tey di ko mottalil sëriñ sëriñ Modou Aminta Fall waaye bi sëñ moo Aminta Fall lakkoo si suñuy bët te rakkam ju baax ja wuutu ko muy sëriñ Cheikh Fall jëmb yàlla sa borom dolli seen i moom it yéene ju toll ne joojee sëriñ Modou Fallou Fall amoon yéene joojee rekk la am wala ju ko ëpp yaakaar naa liggéey lii ñuy lii nu fi boole tey dox na si ay jéego ba tey ngir mu am ndax lépp bëgg a liggéey bu ma Cheikh Ibrahima Fall bi ak bëgg a jekku ndigal yi nga xam ne mooy jógee kër sëñ tubaab di tàbbi kër Cheikh Ibrahima Fall yàlla sunu borom nag mottalee yéene jooju ci seen rakk ju baax jii fi ne yàlla na ko fi yàlla bàyyi muy sëriñ am Fall muy sëriñ Modou Mbett nag bëgg gu wii. ak doon gu mu doon Cheikh Rafal ak tege gu mu tege siw yoon woo xam ne wuutiwul ak la Cheikh Rafal bëggoon ku ko fi toogal mel noonee te mu ànd ko nag njaboot gii nga xam ne bu yëkkatee loxoom rek ñëpp fekk si ko kon yéene jooju moom mi nga xam ne mooy président de la république di chef de l'état di Macky Sall bu fekkee yàlla sunu borom dogal na mu am taw féexub mottilil ñooñee ñëpp seen yéene waaye liggéeyal Cheikh Rafal lu toll nii te ku liggéeyal Cheikh Rafal sëñ Tuubaa nga liggéeyal sëriñ bi nee na mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal nee na mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal lii de moo ma ko wax si biirum néegam nee leen maa ngi koy sant maa ngi sant président maa ngi koy gërëm maa ngi koy ñaanal yàlla na sama borom nangu ñaan ya ñun ñëpp ñu tàbbi si biir sant yooyu ak ngërëm yi waaye keroog ba nu ñëwee yàlla dogal mu bi ñu jógee fii monsieur le ministre musaa euh, sàmba si ñi ngi koy sant ndax keroog bi nu ñëwee fi sëriñ bi ba sëriñ bi wax ma ne ma fàttalil yoon wii kat ne maa ngi sàkkuwaat nu defar ko ba nu génnee moom dafa daldi daldi jokkoo directement ak ñoom kon moom am na si ab taxawaay sa ëllëg sa yàlla dogal ñu yebal si fi ab délégation muy Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne mooy directeur Ageroute ànd ak sëriñ Xultu Ndiaye mii doon wax léegi nga xam ne liggéey bii bu sottee mooma ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tànnoon muy entreprise chinoise yi nga xam ne ñoo war a réaliser travaux yi ngir bëgg a xamal sëriñ bi ne ko ñoom jot nañ digalul liggéey bu nu amoon feneen nan ko bàyyi te ñëw def lii nga xam ne mooy bëggug Cheikh Rafal bi loolu lañ wax sëriñ bi de bañ ñëwee Ibrahima Ndiaye directeur Ageroute bi ñu àndee maak moom ñu ñëw visiter jaar fii ba mu àgg dane ma dañuy dem ci sëriñ bi ma ànd ak ñoom ñu jiitle ba njaareem ñu egg si sëriñ bi ba nu eggee wax sëriñ bi ne ko président de la république moo ma yebal directement si yow nee na ma liggéey bu ma jàppoon di ko liggéey naa ko bàyyi te ñëw defaral la yoon wii ba ma àgg ma soog a dellu sa liggéey boobee loola sëriñ bi bëgg si lool sant si lool loolee moo xoon sëriñ bi nag jëf jii moo ko mandargaal ndax booba ay wax rekk la waaye jëf jaa ngi nii nag moo ko mandargaal keroog nag la ma booleeg sëriñ xultu njaay mii ne ma yaag moom ngeen ànd ngeen toppatoo saytu loolu daal ne ma nag nanga ma demal si mboolem njabootu Cheikh Rafal gi kenn ku ne na nga xamal ne ko lii de président la république wax na ma ko te bëgg na koo def keroog la sàkku ne ma nanga leen xamal ni bis alxames nañ fi dajee ñu teg xeer wi tàmbali ko te bu ñu ko tàmbalee dana àgg booba am na ñu teew si ak njabootam ma ñëw yoon woowee laa jaar ñëw si jëw jëwriñam jii wax ko ko ba nuppi soo ko jàll si ñi nga xam ne ñëpp nag ay jëw jëwriñam lam te ànd ak moom liggéeyu Cheikh Rafal bi tey jii ñu daje fii Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaynde Fatma teewu nii Serigne Galas Kaltoom teewu sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde ma teew teewal fi Cheikh Modou Mountakha ak sëriñ Bassirou Facké muy sam atu xaadar ndax moom démb dafa yendu si CRD jotaay bu yàgg moo tax ba tey jii xañ na aw yaramam mayu ko mu teew waaye moom moo wo moo wax sëriñ bi ne ko ñoom danoo woo sëriñ bi barki démb ne ko sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadir mooy teew def si lool yi waaye ba tey jii bi mu xëyee aw yaramam nanguwul moo tax mu yebal ci sëriñ Ousmane mu teewal ko si jotaay bi yaakaar naa keroog ba ñuy ñëw Serigne Cheikh Mbacke mii ñoo ànd ak Serigne Gallas Kaltoom li nu wax lépp ci seen kanam lañ ko wax ñoo fa yëkkati kàddu Serigne bi tontu leen waaye sëriñ bi nee na mi ngi jottali ay cantam mi ngi jottali ay ngërëmam mi ngi jottali ak ñaanam lii nga xam ne da ngeen koo def ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Fall defal ko Cheikh Fall defal ko taalibe yëpp yàlla sa borom fay leen ci aw yiw lu kawee njort lépp lu ngeen soxla di ko yittewoo di ko sàkku yàlla sama borom jàppandal leen ko ci barke bu maam Cheikh Ibrahima Fall. sëriñ moom it yabal na fi directeur directeur OFOR directeur OFOR bi mu ñëwee fekk boobu ndox xelli wut ci Baye gi sëriñ bi waxoon na ma ma wax ko ma wax leen ko sa suba ga la ñu yabal ci ñoo xam ne danoo indi benn machine. fekk machine bi woon ci forage umul xuraa bi dafa grillé ñu jënd benn machine indi monté ko léegi yàlla dogal ndox maa ngi xelli waaye dafa see bokk mu wax ne ma moom directeur OFOR ne ma am na kilomètre boo xam ne si ay tiwo euh, président war na nañ ko fi indi ngir ñu dugal ko si bërëb yi nga xam ne ndox mi dafaa eggul wala ndox mi dafaa xaw a dafaa xaw a des loola léegi la ma sëriñ Galas mii di wax ne ma danañ ko taxawu te bu nu ñëwee danañ danañ jokkoog ñi ñu war a jokkoon ngir ñu taxawu loolu kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal di ñaan lii nu tàmbali yàlla na suñu borom àggale ko ki ngeen ko defal nag am na pay muy eh, maam Cheikh Ibrahima Fall kin ko defal am nag kooku kenn du ko décider Cheikh wax ne ku ma defal loo man ma defal loo ku ma defal loo ma defal loo la li nga man la ngóor a néew si kon nag kon nag sëriñ baa ngi sant ñëpp ñi ngi jottali ndigal loo xam ne sëriñ bii moo ko am war koo jottali ndax yaakaar naa loolu dama siy laaj ndigal li dolli ko ci waxtaan wi sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng moo ko moom. waaw waaw Serigne Cheikh Assou Ndiaye dafa wax ne sëriñ Serigne Galas nee na làmp yi bu ngeen jógee di ngeen ko gis lampadaire yi bërëb bi dafa xaw a lëndëm lool xam naa lool di ngeen ko gis ah man nag dama dul dama dul jot jottali benn doléance ndax Serigne bi santuma loolu ñoom loolu ñoom ñoo ko sañ Serigne bi moom dafa waxoon nii lépp luy tax mu jekku ndigalu sëñ Tuubaa rek loola mooy ak bëggam loola nag lépp ngi si biir ndax fii njabootu Cheikh Fall dong nga fi dëkk tey jii bu nuy faju dañuy dem ba hôpital njaay wala ñu dem ba jannat diggante bu sore la bërëb yu bari boo fa nemee da nga seet mbaar mu rëy wala yu infrastructure yu bari yoo xam ne jaaru na fa waaye sëriñ bi moom du sàkku du ñaxtu moom lii war la mooy sëriñ bi jox ko ndigal mu jëfe ko rek loolu la ma sëriñ bi santoon li si dolli ko nag sëriñ bi Cheikh euh, Ndiaye Meng dafa wax ni sëriñ Amdi Fall dafa jot ndigal ci Cheikh Modou Mountakha mu ne altine insha allahu muy bisub sikurulaa ndax bisub xasida yi sëriñ Mountakha dafa sakkaat ci biir bis bi bisub sikurulaa lu mel ne lam def woon sëriñ bi muy 24 heures yi sikkar ya xam naa si yeneen anam nag la koy defloo sëriñ bi ndax am na ay ndaw yu dem tey jii sa Cheikh Euh, Abdou Latif sëñ Cheikh Abdou Latif ngir mu wax leen fa nu koy defee ak nanu koy defee waaye ndigal li daal mooy egsi na mooy nu waajal altine incha allahu bay Fall yëpp kuréelu Sikurulaay yi sëriñ maam Cheikh Fall moom sëriñ Assane ak kuréelu Sikurulaay yi ñoom ñëpp ñu waaj xam ne altine incha allahu ndigal loolu danañ sa dem xam naa bu nu waxee waxtu wi ak fu ñu koy defee danañ demaat ci presse bi leeral ko ba ñëpp yëg ko sëriñ Cheikh Ndiaye ngeen wax ni. dimanche incha allahu jii ñu dëgmal moom la sëriñ bi joxe woon ndigal ñu tàmbaliwaat liggéey bee sa mbakke muy liggéey mbakke bee ndax sëriñ bi ak bëggam mooy mu bañ a taxaw tabaski gee taxoon mu yolomal murit yi waaye sëriñ bi nee na dimanche incha allahu na murit yëpp fanoo loolu te yóbbaale ko ku ku ñu dajal wax ko ko dimanche euh, incha allahu la ko sëriñ bi di tàmbaliwaat kon yàlla na ci yàlla yóbboog jàmm te lu si sëriñ lu nu ci sëriñ bi bëggal lépp nañ ko am barke maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee ñu sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa di sant sëriñ Touba di wax jaaraama moom Cheikh di wax jaaraama maam di siyaare mbokk yi ñu fi fekk yëpp di siyaare mbokk ñu fi fekk yëpp di yóbbanti nuyoo bu sell sell di yóbbanti nuyoo bu sell sell jëmale ko ci euh, xalifa général day sëriñ Amdi jëmale ko di jëwriñu maam Cheikh Fall xalif général de Baye Fall. di wax bokk yi rek ne leen. di wax bokk yi rek ne leen. dañ fee teew ci ndigalu Serigne Bass. dañ fee teew ci ndigalu Serigne Bassirou Fall Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Abdou Khadir. mu Serigne Abdou Khadir euh, mu jëlee ndigal ci Serigne Mountakha. mu jëlee ndigal ci Serigne Modou Mountakha. mu wax ne naa ko teewal ci bis bi ci ci ci événement bi mu wax ne na ko teewal ci bis bi ci événement ko waxee woon rek. ndax moo amoon yéene ñëw comme ni ñu ko waxee rek. Euh, yaram wu diis moo ko tee ñëw. diis moo ko teree ñëw. mu ne naa ko ñëw teewal ko fi. mu ne mu ñëw teewal ko fi. mu am ci mbégte lool. mu am ci mbégte lool moom Serigne Soumaré. ndax lépp lu nga xam ne daa jëm ci Cheikh Ibra rek. ndax lépp loo xam ne dafa jëm ci Cheikh Ibra. buñ ma ci yabalee man dama ciy bég. buñ ma ci yabalee moom nee na da ciy bég. loolee it li ko waral. loolee it li ko waral. lu yomb xam la. lu yomb xam la. ndax Serigne Touba da koo sedd bu yàgg. ndax sëriñ Touba da koo sédd bu yàgg. ñu jàpp ne lépp lu ñuy séddale di ko sédd Serigne Touba rek war na sëñ Cheikh Ibrahima da caa war am da caa amub cër. jàpp ne lépp lu ñuy ko séddaleel Serigne Touba rek Cheikh Rafal war na sa amub cër. lii nag. nee na lii nag. doon lu rafet. doon lu rafet. di cër bu am njariñ di cër bu am njariñ ndax dana soqali aw askan ndax dana soqali aw askan dana neexalit ak dëkkiin ak dëkkiin mu mel ne dem bi bi mu mel ne dem bi ak dikk bi jàppandal ko jàppandal ko dana yokk koomum réew dana yokk koomum réew loolu nag muy mel ne sunu njariñ la ñun ñëpp loolu mi ngi mel ne sunu njariñ la ñun fekkente ne président dafa am yëg gu toll noonu xam ne yitte am na fi. kon bu fekkee ni président dafa am yëg gu toll noonu xam ne yitte am na fi. mu ñëw fas ko yéenee saafara. mu ñëw fas ko yéenee saafara. loola na xam ne lislaam la ko defal. loola na xam ne lislaam la ko defal. defal lu ñu defal lislaam rek Serigne Touba lañ ko. te lu ñu defal lislaam rek Serigne Touba lañ ko defal. Serigne Touba nag lu mu am sédd na ci maam Cheikh. Serigne Touba nag lépp lu mu am sédd na si maam Cheikh Ibrahima Fall. ñaan nag mu yaatu. ñu ñaan nag mu yaatu. Euh, ndax aw yoon ak euh, li ñu fi wax léegi muy luy leeral nit ñi. nee na aw yoon ak loo xam ne luy leeral nit ñi. ak fu ñu mën a fajoo. ak fu nu mën a fajoo. ak yu ni demee. ak yu ni demee. dafa mënta ñàkk ci aw dëkk. dafa mënta ñàkk ci aw dëkk. fu mbooloo nekk fu ne jaadu na fa. fu mbooloo nekk fu ne jaadu na fa. bu ñu ko defee fii. kon bu ñu ko defee fii. manes naa rafet njort ni. manes naa rafet njort ni. leneen a ngi ñëw. leneen a ñëw. koy tàllal loxo bu baax ñu ngi koy tàllal loxo bu baax. di ñaan lépp mat. di ñaan lépp mat. xam ne lu lu jëm ci Serigne Touba rek. te xam ne lu jëm ci Serigne Touba rek. war naa jëm ci Cheikh war naa jëm ci Cheikh ciy wax sëriñ bi nee na loolu lañ amoon ci lu ñu ciy wax. xam naa nag kàddu yi du gudd. nee na xam na ni kàddu yi du gudd. du jub du du jub. du jub koy mbàkke. <laughs> du jub nañ ko bëggee. jub na lool mbàkke. waaye ndax ndax ndax ndax dañ koo tàmmut. ne sëriñ dañ koo tàmmut. dañ koo tàmmut. loolu rekk la. nee loolu rekk la. waaye lu ci dëngit. waaye sëriñ bi nee lu si dëngit. nañ xam ne ci man mii koy wax la. nee nee ñu xam ne si si sëñ bi la rek. waaye du ci sëñ. waaw waaye du sëriñ Bas bu mu jógee. loolu rek laa ci amoon nee loolu rek la si am lu muy wax. di asalaamaaleykum wa rahmatullah.